docteur Magatte Wade maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. nga nekk maire bu Ngaye mexe tey jii ñuy wax ma euh, euh, communes yi nga xam ne dañuy boole seen doole ngir mën a suqaliku ngir mën a am ay financement euh, tey jii yow ban jàngat nga am ci mbir moomu le waaw maa ngi leen di sant ci laaj boobu ngeen laaj. loolu communes yi lëkkaloo pour mën a liggéey dafa méngoo ak jamono. dafa méngoo ak euh, waxtu bi nga xam ni développement économique dafa laaj euh, nit ñi boole seen doole boole seen i xalaat boole seen i gis-gis xam fi jëm fi nga xam ni mooy koom ak euh, ak liy jariñ askan wi alors intercommunalité dafay loo xam ni dafa war a am waaye nag pour mu am foog nit ñi lëkkaloo communauté am lëkkaloo ngir tëral loo xam ni daf leen di amalan njariñ ñoom ñëpp. mooy li ñuy wax gagnant gagnant que li may def dina ma amal njariñ waaye ki ma koy defal itam dina ko amal njariñ ba nga xam ni kenn du ëpp ëppale moroomam mais ñu bokk ko mu mën a indi koom mën a jox liggéey xale yi parce que aujourd'hui Sénégal fi mu toll pour ñu mën a jox xale yi liggéey pour que ñu mën a am koom war noo def noo xam ne nii su suñuy suñuy suñuy su suñuy mbir dañ koy dañ koy boole euh, ci alal dañ koy boole ci ci ci stratégie dañ koy boole ci doole ngir uti ci suñu carnet d'adresse mais intercommunalité nag loo xam ne rek ki ma sësal rek laa ko mën a defal ki ma sësal moo dàq ndax euh, coût yi pour ngeen gisante ak ngeen def dara ci zone boobu moo gën a yomb waaye mën nga koo dafa koo sësantewul ku sori mais mu nekk ci biir réew mi comme mën nga koo dafa koo xam ne tam nekkul ci réew mooy commune ak commune ñu jokkaloo loolu euh, danuy wax ni daal lu rafet la loo xam ni war nañ koo def Euh, muy nekk loo xam ni dafay euh, doxal réew. léegi euh, processus bi d'habitude naka lay demee surtout pour ngeen mën a jot ci yenn financement bi naka lay demee te tamit bu financement bi ñëwee ban commune moo koy jël bàyyi ko ak keneen wala da ngeen koy seddoo comment ça se surtout ci côté boobu. waaw xam nga financement moom projet bu baax mooy indi financement su fekkee amoo projet bu baax mën a am financement kon problème mooy communes yi. bu ñu décider liggéey ensemble dañuy xool li nga xam ni mën nañ koo tëral mu woo mu mu indi ay financement indi ay financement ci seen i conseils municipaux ci seen budget indi financement ci réew mi ci état bi indi financement ci ñu leen jàppale ci biti u ñuy bëgg a ñëw bokk ci waaw loolu mooy li njëkk mais mënoo uti financement boo amul projet projet nag pour am ko mooy da ngay tëral xalaat d'abord waxtaan ci xool ba xam am nga mooy xool ba xam loolu am na rentabilité ndax am na njariñ ndax di nga ci géey nit ñi dañ ci mën a liggéey ndax dina am bénéfice ndax dina mën a yàgg boo amul lu mel noonu ak li li koy def it man ngeen ko xam ngeen ko ni ngeen koy gérer itam xam ngeen nu koy gérer muy gestion bu baax loolu boo ko amul amoo projet parce que bind rek damaa bëgg rek taxula am projet dinaa def lii taxuta am projet loolu moo tax commune yu bari de ñu am euh, ay ay xalaat yu rafet dañoo am ay bëgg-bëgg yu baax waaye boo ko mënta tënk tëgg ko ba mu nekk projet ba amoo projet mi ngi mel ni rek tëgg bu tiim wurus ak euh, ku tiim wurus ak xaalis wax ni daa bëgg lam te xamul nu muy tëgg lam donc lam bi day nekk ci xel mi rek waaye du ko mën a tëgg donc euh, loolu euh, la ñuy wax ni communes yi war nañu aussi kon yokk formation yi ci lépp li nga xam dafa jëm ci projet jëm ci gérer projet pour ñu tàngat ci seen nit ñi ba nu xam ko bu boobaa nag aussi projet li nga xam ni ñoom ci la ñuy yëngu bu dee mbay mi nga xool ci mbay mi loo ci mën a defee loo xam ni dina mën a dina mën a méngoo ak li nit ñi xam foofu waaye bu fekkee yow mbay nga xam bëgg nii da ngay da ngay jëli da ngay defi ay ay ay weñ loolu xam nga du mën a ànd baa ngay defi ay produits chimiques da ngay xool rek li nekk sa gox ak li nga man ak li nga xam ne tam dina yomb nga am ko baa ka koy defal li muy indi dina bokk ak li nga indi mu gën a yomb booba gën a neex na donc euh, li ñuy wax daal mooy communes yi war nañu gën di xalaat gën a jokk la gën a am intercommunalité gën a liggéey pour que réew mi jëm kanam commune bu nekk bu liggéeyee province bu nekk commune yi lëkkaloo réew mi commune yi lëkkaloo bu boobaa day yombal liggéeyu nguur gi te réew mi day gën a gaaw a est-ce que tamit du am euh, inconvénient du fet que am na maire yoo xam ni bokkuñ camp politique bi ñu far euh, souvent loolu naka ngeen kay daal di gérer. waaw xam nga euh, mën ngeen a bañ a bokk camp politique. mais bu fekkente ni développement bi ngeen di li seen poli euh, parti di xëccoo jigéen yoon war ngeen a mën a liggéey pour askan wi parce que waaye nag politique li ci parti moom objectif am mooy mu conquérir pouvoir mooy mu jël nguur bu fekkee ne yow jël nguur rek moo la yitteel. Uh, doo mën a ànd ak ki nga xam ne bokk leen parti kon moo tax ma ni ñi ngi bokk parti ci la gën a yombe waaye ñi bokkul parti itam dara terewul ñu liggéey pour askan. est-ce que mën nañu wax ni acte trois bi moo baaxul moo tax communes yi amuñ doole ba dem bay boole seen doole pour mën cee génn. waaw loolu kenn mënu ko acte trois bi kenn mënta wax ni bon la acte trois bi li ñu mën a wax rek mooy euh, am na xëy na yu ñu ci war a yokk baa yu ñu war a jubbanti. waaye euh, baax na parce que am na étape yu bari yoo xam ne liggéey na ko ñu avancé ci mu baax bay bëgg a dee bon am des na nag ci parti finance bi. ak gouvernance territoriale yi yoo xam ni war nañ koo gën a dëgëral mais yooyu ci formation bi rek ñoo ngi formé tam lu bari bari pour nit ñi dem mais développement commune itam du nguur mooy ñëw développé la commune da lay jàppale jo mais il développement aussi nga accès ko ci stratégie développement nguur tey PSE ñoo ngi ci PAP 3 ans ah, mais ci loolu lañu war a euh, lañu war a lang ba nga xam ni bii suñu développement dina mën a ànd ñun ñëpp territoire yi ànd ak bu nguur gi pour réew mi développé donc euh, acte trois bi baax na lool nañ ci gën a liggéey gën a renforcer côté yi nga xam ni am na fa ay tolof tolof pour que mu gën a dem mais kenn mënta wax ni acte bi baaxul. est-ce que euh, mën nañu euh, jàpp ni fileeg balay yàgg commune yëpp dinañ daal di xool ci ñi nga xamante ni def ngeen ko maanaam commune yu nekk Sénégal yëpp mën na daal di lëkkaloo pour jëm ca kanam est-ce que mën nañ ko xaar balay yàgg dara. waaw mais loolu gis nga loolu man mii damaa bëgg a nekk président association des maires du Sénégal ci ponk yi nga xam ne moo tax ma bëgg ko nekk loolu ci la bokk. Mhm. ñu def intercommunalité mais ñu def ay zone économique euh, spéciale ci biir réew mi ñu gungeendoo yëpp nga xam ni di nga mën a am partenaire stratégique sax boo xam ni dina mën a nekk ci Fouta nekk Casamance nga am euh, financier boo xam ni dina mën a financer ñëpp nga xam day yombal liggéeyu état bi donc loolu euh, ñu bëgg ko ñu bañ ko ki ko nangoo ki ko nanguwul. fokk commune yi am ay convention lëkkaloo dem liggéey commune bu lëkkaloowul mënoo dem fenn parce que bu fekkee ci fonds de dotation nga wékku ak fonds de concours loolu mënta développer ak commune loolu euh, maanaam tuufaay la rek pour say bët gën a leer waaye boo dul gis moom mënu laa tee gis. Euh, tey jii ñu lay laaj ci sa projet bi euh, tudd. projet euh, zone économique industrielle et spéciale du du Kayor euh, si yaatal lan moo ko tax a jóg exactement euh, naka lay demee pour développer Kayor. waaw mooy zone la ñu ko tuddee ZESCA. waaw la zone économique industrielle spéciale du Kayor. c'est-à-dire xool na ba xam ni ñun am nañu projet ñun ñooy lépp lu jëm ci der ci biir euh, Kajoor donc ñu fii dañ fiy def benn zone industrielle Euh, benn cluster industriel bu jëm ci der donc dina am usines yuy defar ay dàll ak ay maroquinerie ak ay sel am usines yuy defar teinture xam nga sunu wuul yeeg ndugóor yeeg yooyu mën na def ay teinture yoo xam tubaab yi xamuñu donc ñu am usine teinture végétale parce que jamono bi foofu la jëm teinture chimique yi dañ koy dindi moom am usines defar ay col parce que col yi ñuy utiliser fii yëpp ci biti lay jóge boucle et accessoire ñoo am usines yu koy defar ñoo am tannerie am nañ tannerie végétale am na nañu centre de formation métier pose cuir bu mag am na nañu centre d'exposition artisanale am na nañu maison de l'outil am na nu ñaari usine et cetera et cetera mais loolu nag bu ñu ko renforcer nga yi day nekk zone industrielle boo xam ne dar comme boo demee Italie dëkk bu ñuy wax Da Vinci euh, boo demee Florence boobu lépp dar fa la tannerie yi nekk idée bi nit ñi am itam yaakaar tannerie day nekk ci géej rek loolu erreur la boo demee Da Vinci tannerie yi ci ay forage la nekk bu nu paree ndox mi dañ koy traité waat dindi korom bi arrosé ci plante yi nga xam ne moo nekk ci biir dëkk bi boo nee loolu nag dëkk yi wër ngaay nag ci commune wu Kayoor bu ci nekk ci produit bi ngay def ñu def fa usine parce que usine industrie mooy développé réew euh, les moteurs de la croissance wax naa ko industrie la mais dëkk boo amul ay industrie amoo ay PMI doo dem et loolu moo tax ñu ni dañuy def usine Attiéké Amidon euh, ci diggante Taïba Ndiaye Euh, Daaru Xuddoos ak Meewaan tey Badiane xam ngeen ni maire bi lépp lu jëm ci ñam bi moo ko yor xam nga kooku yomb na kon nga ñëw diggante Daaru Xuddoos ak Meewaan nga def fa foofu moo am bisaab nga def fa usine boo xam ni day defar ataaya bisaab parce que loolu Soudan la am na fi Mali mais usine bi gën a rëy ci àddina fi mu ne Soudan suñ deful ndànk léegi chinois yi defar ko dina ko jaay nga yéeg uti cilmaxa mbayee ñaaxee nga def fa minoterie yi yuy defar farinu farinu dugub bi farine mboq bi et cetera parce que pourquoi Dakar rek lañ koy defaree ak ak feneen donc euh, pourquoi usine tubaab yi rek ñoo koy defar léegi am na ñu koy defar ay ay ay ay NMA yooyu mais il faut ñun tam ñu defar ko foofu li ñuy produit ñu koy transformer sur place parce que problème mu Afrique ak Sénégal mooy suñu produit de base duñu ko transformer boo demee Koul am na ndox boo xam ne dafa lëkkaloo ak Maaba jaar Bégal dem ba Kër Samba ak Prodac bi ñu di di renforcer ñaay bi parce que ñun ñoo yor ñaay donc produit horticole yi ak jën yi deuxième port de pêche Sénégal presque troisième ou deuxième ñaa c'est Fass Boy ñu yor ñaay bi suuf yi gën a baax ci Sénégal ñuy jigéen marché bi gën a rëy ci ci Sénégal boobu jigéen génnee Dakar muy Touba kon deuxième marché du Sénégal Touba la ñoo ngi defar tali bi jóge Fatick Mbaba garage Ngaye Fass Boy ñoo ngi defaraat tali bi jóge Ngaye uti Touba kon léegi ñu def benn port sec entre Bamba Garage Mérina Dakar Ngaay ak euh, ak Koul ñu def fa benn port sec dévier raay bi ndax raay bi ñëw na ba Ngaay ñu dévier ko mu dem fa sept kilomètres sept kilomètres huit millions de dollars à près dix milliards du dara ñu am raay mais nag bu boobaa état bi dafa war a am doole damm loxo GCO ni ko raay bi nga am ñu joxoon la concession dañ cee war a lonk ay wagon yoo xam ne day indi ay conteneurs parce que ñoom seen i wagon dañ ciy indi ay conteneurs raay bee tam war na am ciy daw boo xam day dem ci port sec port sec bi nag am service yëpp ay hôtel ay service yi nga xam ni port da koy am yëpp ba nga xam ni léegi bu conteneur jëmee Touba baa mu jógee Touba jëm feneen foofu lañ koy jëlee ku jógee Maroc ba Mauritanie mën nga yem ngaay ku jógee Mali Gambie ba ginne boo mënta nga dem nga yem ngaay te bu boobaa dina tax suñu tëli ñu gën leen a sàmm parce que sàmm tëli moo gën a cher defar tali te tali yi li koy yàq mooy oto yu mag yi kon nga xam ni ñun suñu zone économique spéciale économique tënk nañ ko ba ministère de l' industrie jël na ko dugal ko ci plan industrialisation Sénégal ministère économie nangu na ko kon euh, war nañu nag jàppale nu mu gaaw ci études yi mu gaaw ci def bi mu gaaw mais aussi communes yi comprendre enjeu yi pour que note conceptuelle bi nga xam defar nañ ko mais initiative bi ci meeru ngay la jóge ci meeri ngaay la jóge waaye ngaay moomu ko ñun ñëpp ñoo ko bokk note conceptuelle bi mi ngeeg ñun jox nañ ko maire yi war na wootee réunion ak euh, partenaires yi ñu toog saytu ko pour commencer liggéey voilà docteur euh, Maguette euh, Wade maa ngi lay remercier. jërëjëf. may fàttali yow yaay maire bu Ngaye Mekhe nekk tamit euh, candidat pour la présidence de l' association des maires du Sénégal. exact pour àllarba incha